waa gars yi dañ leen waxtaan tuuti ci li nga xam ne moo ñel senegal tey ñëpp gis nañ li nga xam ne moo fi xew président Macky Sall acharnement bii muy jël di ko teg ci kaw usmaan Sonko pour lan la gendarme yi muy déployé di leen jël di leen dugal fu nekk ci réew mi ngir ñuy topp Ousmane Sonko ana lan moo ko fi jar gendarme yooyu nga xam ne tey jël na leen ñuy topp Ousmane Sonko est-ce que waruñoo mën a assurer sécurité wu sénégalais yi fépp ci Sénégal est-ce que ñoom ñooñu noonu tey bu yenn jéey yi amee ci réew mi ay cas de vol agression yu bëri yi est-ce que dinañ leen fa gis da ngay woote parfois gendarmerie bay bëgga dee waaye kenn du la lijjanti waaye il suffit que Ousmane Sonko moom am na fu mu nekk rek am na lu daw lu fa xew mooy que ni gendarme yëpp jël nañ leen daal leen fay indi da ngay gis ay camion wi camion wu gendarme daal di ñëw ci benn bërëb tout simplement pour Ousmane Sonko wàllum politique nag daa war a soppeeku fii ci Sénégal. Macky Sall nag li mu fi yàq bëri na lool depuis 2012 ba tey bi mu fi toogee amul lenn lu mu fi def loo xam ne sénégalais lu ñu apprécier la waaye li ci doy waa tamit mooy Macky Sall moom ci atum 2009 ba 2011 dafa génnoon fa nga xam ne moo di PDS waa PDS ñëpp bannir ko mu dem ci àll bi di reyante di xeex ba tey jii mu doon li mu doon waaw bu fekkonte ne président Abdoulaye waa daf kaa xañoon loolu tey ndax moom dina nekk président de la République du Sénégal tey jii nemmeeku tour moom Macky sàll moo ko njëkk def ci atum 2009 def ko tamit atum 2011 wër ñaari yoon Sénégal Ousmane Sonko c'est la première fois mu koy def te yàgg na ko annoncé nag nekkul ne dafa jug nii rek ne moom Ousmane Sonko day wër Sénégal déedéet yàgg na ko annoncé ñu jëg saa yoon tuuti mbas mi dugg si mbas mu tax moom mu ne ah comme te lii xew na tëj nañ dëkk bi yëpp nañ toog xaar ba lii yëpp weesu waaye lan moo ci mujjee am. dossier lañ ko génneel moom ak aji saar ci lan tout simplement moom da doon faju ji ñu def la tuuba créer ko fa dara xam nañ vision politique bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko xam nañ fi mu jëm te xam nañ itam fi mu teg ay tànkam loolu moo tax tey jii lépp luñ mën a def rek dañ koy def ngir daal di koy éliminer waaye nag ku mënul éliminer koo xam ne yàllaa la fal dañ ciy tey te def ci ndànk nañ xool parcours Ousmane Sonko depuis ba mu génnee ca biir fonction publique ba tey dafa nekk di yéeg rek ca kaw a kaw li tubaab yi naan montée exponentielle loolu la am fi ñu toll nii. président Macky Sall pourtant moom ak ay ñooñam ñoo def seen ay njuuj njaaj fexe ba génnee Ousmane Sonko ci impôt yu domaine mu nekkoon inspecteur tey ci lan la mujjee mi ngi nii jot na fee nekk député instant bi moom mooy maire Ziguinchor te bientôt probablement mu nekk le président de la République du Sénégal waaye li ci doy waar mooy loolee di président de la République du Sénégal institution boobu président Macky sàll ak ay ñoñam moom lañ bëggul Ousmane Sonko dégg ko loolu nag nekk na loo xam ne bu sénégalais yi seetaanee ñu daal di koy faagaagal ba loolu du mës a am. dafa am nag lu ko waral moo tax ñoom ñem wu ñu Ousmane Sonko nekk président ndax xam nañ li ñu def ci réew mi liñ def ci réew mi bëri na lool bëri na trop bëri ci ci ñoom ñoo xam ne tey jii bu bés bu Ousmane Sonko nekkee président de la république amaana na leen poursuivre en justice tey ani Aliou Sall. sénégalais yëpp a ngi wax ay quatre cent mille lan moo ko waral c'est parce que c'est des centaines de milliards ci lu jëm ci wàllum petro kenn xamul fan la jaar. ani wërum ArcelorMittal bi saa su nekk ñu ngi ciy wax am ay milliards yi yoo xam ne itam noonu la luubee kenn xamul fan la jaar. Mansour fay moom waxaale wuñ ko sax moom lañ dénkoon n'est-ce li nga xam ne moo jëm ci wàllum inondation yi ñaata milliards lañ décaissé plus de sept cent milliards ci suñu ay koppar ani mu tey. Dakar bu wis wisaloon inondation bi na fi guut loolee nag nekk ay mbir yoo xam ne kenn mënu koo bàyyi mu jàll. boole ko yeneen ak yeneen yu sew sewaan yi ñooñ nag dañ ci lim de waaye ak cee bëri Pape Alé fan yi weesu rek mi ngi génne benn këyit benn plan boo xam ne benn général fii ci Sénégal moom moo tabax immeuble 6 milliards de francs CFA ana lay jëlee alal jooju. Amadou Ba premier ministre tey jii c'est un moom moomee nekkuloon fenn fu dul impôt et domaine comme ni fi Ousmane Sonko nekkee woon kon bu Ousmane Sonko mënul nekk milliardaire nan la Amadou Ba mën a nekkee milliardaire ci simple fonctionnaire loolu lépp bëri na ci yoo xam ni faw ñu leeral ko sénégalais yi moo tax nag ñoom instant bi lu ñu mën rek dañ koy def ngir daal di faagaagal Ousmane Sonko mile kenn ku mel ni ñoom dong moo leen di arrangé moo tax gis nañ fan yi li fi nekk ñi ngi jéem a xool naka la ñuy seen bopp ak seen loi amnistie bi ñuy génnee waaye itam bëgg jaxase làngum politique gi moo tax ñu bëgg indiwaat Karim Meïssa Wade indiwaat itam Khalifa Ababacar Sall waaye ñoo ñu ne pèse pas le poids par rapport ak Ousmane Sonko jamono ji ñu toll nii non du sax benn ndax jeunesse bi ñoom ñoo topp ci ginnaaw jeunesse bi ñoo ko bëgg jeunesse bi ñoom ñoo ko sopp jeunesse bi ñoom ñoo gis ne kii di Ousmane sunkoo mii kat am na espoir boo xam ne war nañ koo mën a am ci moom ndax d'abord nekk na koo xam ne ku dëggu la. boobu ba tey kenn déggu ko ci lenn loo xam ne état bi mën na ko cee jàpp amul benn fifteen boo xam ne mës na ko jëlal Sénégal ba muy nekk impôt yu domaine te foo xam ne nag ay milliards yi milliards yi a fay jaar këyit bu nekk di fa jaar wàllum suuf moom kenn waxaalewu ko nga nekk impôt yu domaine nekk fa nag inspecteur konoon lu fa amul moom Ousmane Sonko moom la neex waaye nag am ci yeneen yoo xam ne itam dañ ko ciy dégg maanaam njub gi Ousmane Sonko kenn mosu koo dégg ci lenn loo xam ne luubal la tey jii rek ñëpp gis nañ mu Mamadou Lamine jante confidence bi nga xam ne def na ko ak yi nga xam ne wax na ko ci Ousmane Sonko suñ naan dajee ay séminaire Ousmane Sonko buñ paree di jox nit ñi xaalis pour ñu jël seen carburant et tout ça moom mu ne déedéet baax na doy na garaawul damay dem ñibbi maanaam laata sax muy nekk politicien moom nii la daan dundee tey mu nekk politicien continuer di noonu. amul 15 boo xam ne bu ko intéressé woon tey jii def na ci Macky Sall bu yàgg ndax plusieurs fois proposé nañ ko fi xaalis proposé ko fi ay post waaye Ousmane Sonko dafa mës a dëdd loolu mësu leen faale mësu leen lijjanti leen naa ko ñor mooy naka lay def ba sénégalais yi jafe-jafe yi ñu nekk ju génn ci xool leen dëkk bi ni mu mel xool leen dëkk bi ni mu mel Macky Sall yàq lépp dema dema dem sax ba ñi nga xam ne sax ay jaaykat yu ndaw ndawaan lañ bu njëkkaan nga xam ne seen lépp ay yomb tey lépp a jaaykatu fonde yi sax dañoo yokk seen fonde da nga naan jël wutir sax di fay ay cent ak i fanweer léegi boo fayul deux cent trois cent jëm kaw doo ci bokk ndax lan lépp a cher oto yi kenn waxaale wu ko Sénégal fii ñëpp xam nañ li ñuy dund nekk nañ ci dëkk boo xam ne dëkk bu métti la nekk ci dëkk boo xam ne nit ñi mënuñoo xëy matale lépp waaye kan moo teg loolu yëpp sénégalais yi c'est le président Macky Sall am nañ fi zircon animu ani suñu or bi nekk Sabadola kan moo ci jëriñu du benn sénégalais amul benn bijoutier boo xam ne mën naa wax ne or bi may liggéeyee oru Sabadola la ñu teg ko fan pour lan loolu mel ni ñun dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dañ ko war a tayle jël lépp jox ko tubaab yi amul lenn lu ñu deseel dara xoolal exemple bi lu jëm ci wàllum jën yi ñuy lekk senegal ñëpp gis nañ surtout ci Dakaaru Njaay gi ay poissonnerie yu bari poissonnerie yoo xam ne suñu jigéen yi dañ fay rang di xëccoo di njëkkante ndax lan jën yu baax yuñ fay am kan moo ko moom ñen ñoo fay jaay ay chinois ak i coréen mais ñooñu fan lañ jëlee jën yi dañoo dem Chine nappi ji ko indi ko wala ñu dem Corée nappi ji ko indi ko non suñu géej gii lañ ko nappi ndax makki Sall moo leen jox ay quota de suñu géej gi yëpp mu jaay ko ba pare boole ci di écraser ak nappaaji suñu ay pêcheurs. buñ dajee ñoom ci géej gi jaar seeni kaw gaal ñaata mool ñoo dem géej ñi bisiwuñu tey ñooñu ñooy jël suñu ay jën def ko ci ay yi defar ko ba mu normal ñëw di ñu ko jaayaat maanaam tey état bi jaayee woon leen quota de pêche dix mille francs ñoom ñu dem nappi seen jën ñëw di ñu ko jaay benn mille francs ba am ci ñoom seen cent mille francs gagné ci quatre-vingt-dix mille francs jël yóbbu seen réew ak ñoo am fulla te am fayda ñoom waaye ñun nag la suñu ay dirigeant amul benn fulla ñun la suñu ay dirigeant amul benn fayda ñun la suñu ay dirigeant xamul fu ñuy teg seen tànk ñun la suñu ay dirigeant di faagaagal saa su nekk ñun la suñu ay dirigeant amul benn yërmande boo xam ne amuñu ko ci ñun ndax lan jàpp nañ ne ñoom ñi ngi seen olala sénégalais yi ñi si des ah nañu muñ lépp dina mës a changé ba kañ ani suñu pétrole ak suñu gaz exploitation bi ñu ngi naan tàmbali na ñu naan tàmbaliwul ñii naan am na ci loo xam ne ci xaalis la jot naa génn kenn xamul mbir mi nu mu demee ndax lan nekkuñ ci état bu transparent te pourtant démocratie noonu la waroon demee bon gouvernance noonu la waroon demee nit ñi war nañoo mën di am toutes les informations nécessaires waaye dara avec le gouvernement de Macky Sall acharné wu nag ci benn nit muy le président Ousmane Sonko nañ ko bàyyi mu liggéey te ñu dem jéem a liggéey ji ñoom moo gën politique gi politique nag buñ ko daan wax. comme Aristote nam ko tuddee woon c'est l'art de gérer la cité waaye ñoom gérer wuñ cité gérer wuñ quartier gérer wuñ dara tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir tout ce qui les de faire sorte que benn opposant lu fi taxaw di leen yàqal waaye nag yàqule nañ ndax fi ñu laal moo baaxul et c'est Ousmane kooku nekk na koo xam ni du moom mbir mi du moom Ousmane Sonko en personne yàlla la yàlla bu mooy jig saay tànnal am réew benn nit pour mu ñëw defar ko Sénégal nag bosam daa jot te ñëw na c'est Ousmane Sonko mënuñu ci dara ñu jéem ko ñu ñàkk koo jéem ñu faagaagal ko ak lu ñu ci mënti def du tey Ousmane Sonko il sera là nañu accepté nag te xam ne lii mbir mu tàkk la te mënuñu koo fay au contraire nañ ko jéem a dimbali bu ko defee moom mu jéem a defar Sénégal comme te ñoom mënuñu Macky Sall nag na organiser ay yu transparente organiser élection yoo xam ne ñëpp ay bokk Ousmane Sonko wax ñëpp. moom moo si bokk ndax moom moo taxawoon fii nañu ñaari mandat laa leen ñaan 2019 mu taxaw ne sama second et dernier mandat laay def tey bu taxawee fii di ko jéem a weddi dina am de sérieux problème sénégalais yi duñ ko may dara ndax moom moo taxawoon ne éthique ak déontologie daa war a ñëw dugg ci wàllum gouvernance bu Sénégal jamono ji muy jël pouvoir bi nan ay transhumance baaxul lii baaxul tey ji mi ngi nii ñëpp tout le monde a transhumé sauf Ousmane Sonko li ci am ba des mooy nag na organiser élection bañ cee bokk moom ndax bu ci bokkul loolu mooy permettre moom mu respecter démocratie bu Sénégal te dafay incarner nag ab institution et c'est le président de la République président de la République nag warul di wax muy dañ ay ma waxoon waxeet amatul Sénégal gi li nga waxoon ni nga ko jëfee par A ou par B. 2024 nag incha allah rabbi élection dina am te sénégalais yi ñoom ñooy tànnal seen bopp ki nga xam ne moom moo leen doy. sénégal yi ñooy tànnal seen bopp ki nga xam ne du leen nax du leen wax loo xam ne du dëgg. te du jël itam seeni ay suuf géej gi ak lépp loo xam ne rek Sénégal ak moom daal di koy tayle sénégalais yi ñoo soxla amaat li ñuy woowee seen souveraineté ci lépp nag ci lépp waaye pour loolu il faut que d'abord président Macky Sall jóge fi buñ ko deful rek sénégalais yi duñ mës a nekkaat ci noflaay te ci ay guuta rek la ñuy dugal jafe-jafe yi di gën di yokk secteur boo dem muy gën di métti te dara waralu ko lu dul gouvernement bu bon bu jaarul yoon boo xam ne li muy def tegu ko fenn ba noppi yaakaar ne ñoom képp ñoo fi war a toog ñoo fi war a des loole nag du fi am nañu jàmmal Ousmane Sonko bàyyi ko mu def li mu war a def ndax nag réew mii ñoom moomuñu ko. dëkk bi santul Faye Sall Sénégal la te sénégalais yëpp ñoom ñoo ko bokk ñooy tànn ki leen neex mu nekk ki nga xam ne moo leen di jiite.